ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi sant suñu boroom min ñi dajalewaat ci néegam bi ñu fas yéene jël benn bind ci lu aju ci wàllu fiq rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da doon wax ne man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin yàlla kum namm ci yow yiw dalay xamal sa diine ñu ngi doon topp téere bii di minhajul muslim bu abubakar aljazairi rahimahullah ñu ngi nekkoon ci li ñuy tudde ahkamul janaiz mooy nu ñuy war a taxawee ab néew ba yegsi woon fi ñuy wax li nga xam ne dañ koy def gannaaw ba ñu suulee ba pare ñu jëloon ci ñeenti bind mi ngi noonu ca war a jël tey la nga xamee ne nii mooy juróomeel ba mooy tahrimu binaa il masajid ala al qubur mi ngi noonu tahrimu binaul masajid alal qubur bu dee ñu yor mool bu bees bee ñu ngi ci page deux cent trente deux naam tey jii mooy le vingt trois janvier ci deux mille vingt trois deux mille vingt deux naam di tombeeg le vingt jumada saniya ci mille quatre cent quarante trois su dee ne mbokk yi bokk nañu gis day wax ni. tahrimu binaa il masajidi alal qubur araam gi nga xam ne araam na ko ñu tabax ay jàkka ca kaw bàmmeel ya bu ko defee mu ne yaxramu binaaul masajid alal qubur des na araamal lii nga xam ne mooy tabax ay jàkka ca bàmmeel ya wattixaasu suraji aliha ak di ca jël ay làmp yu ñu fay taal li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laana allahu zawaaraatu alqubuur yonent bi nee na yàlla rëbb na jigéen ñay sax di ziyaare bàmmeel wal muttaxizaati alayha almasajida wa suruj ak ña nga xam ne dañ cay jël ay jàkka wa suruja ak ay làmp yu ñu fay taal wa qawlihi laana allahu alyahud mu ne yàlla na yàlla rëbb yahud ya waay ittaxasu qubura anbiyaihim masajid ñoom de dañoo jël seen xabru yonent yee def leen ay jàkk waaw mbokk jullit bu ñu xoolee tasaaroo na lool ci diine lislaam kilifa yu mag yépp ñu suul leen ci ay jàkka loolu nag la koy waral mooy ñàkk a xam am na ñoo xam ne dañuy dégg aaya ba suñu borom di wax ci asxaabul kahf suñu borom yàlla mu ne wa qaala alladina galabu ala amrihim la nattaxisanna alayhim masjida ña nga xam ne ñoo notoon ci seen juuyoo ba ne kaw xale yi daan ci jàpp jàkk loolee dalay jàngal juuyoo amoon na ca waaye dalay jàngal la yàlla wax ñu notit mooy li ëpp ci nit ñi en général du ñu xam àtte yi looloo tax ñu tabax jàkk jooju te waruñu ko woon a tabax waaye loolu yóbbaale na jullit ñu bari bokk na yóbbaale jullit ñu bari it mooy xabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nekk ca jàkkaam ja ca loolu mbokk jullit nañu xam ni yonent bi digluwu ko ay sahaabam defuñu ko loolu bi ñu koy def sahaaba yi jeex nañu booba nga xam ni génération bi topp ci seen gannaaw jamonoy Abdul Malik ca fekk Omar ibn Abdul Aziz mu nekkoon gouverneur ca Madina la santaane ne nañ yokk jàkka ji dogal ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye jàkka ja daa nekkoon ne kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk nii du woon benn léegi nag bi ñuy yokk jàkka ji ñu yokk ko dugal ci la nga xam ne mooy kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom xam-xam ya fa nekkoon naqarlu ko waaye xam ngeen ni kàddug borom xam-xam kàddug buur moo ko ëpp doole looloo tax ñu saxal loolu loolu nag yóbbu na ay jullit ñu bari jàpp ne kon ab sëriñ bu dee res na ko mën a suul ca jàkka ja waaye mbokk loolu njuumte la xabru fu mu nekk kenn wuru faa tabax jàkka jàkka fu mu nekk kenn wuru faa dugal xabru loolee yonent bi alayhi salaam rëbb na yahud yeeg nasaraan yi doon def loolu kon di mbir moo xam ni dañ ci war a bàyyi xel bu baax la doon cosaan ci jamono yonent bi alayhi salaam la mu fekke woon moom ak sahabaam mooy nit ki bu faatoo ñu dem suul ko ca la nga xam ne mooy armeel ya amma moom sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ni ab yonent day fa mu faatoo foofu la yàlla bëgg ñu suul ko fa loolu tax sallallahu alayhi wa sallam mi mu faatoo ci lal bu mu tëddoon lalu yaay Aïcha dañoo tuxal lal bi suul ko fi mu faatoo maadaama nekk na xabru mook Aboubacar daaw ñu takkoo guddeeg bëccëg bi Aboubacar faatoo néeg ba néeg yaay Aïcha la doomu Aboubacar moo ñu ñaan nañ ko fa dugal ñu dugal ko foofee Omar ibnul Xattaab it ñaan yaay Aïcha dafa bëggoon ñu dugal ko foofu mu nangul ko loolu ci gàttal looloo waral ñoom ñooñu ñu nekk foofu ci néeg yaay Aïcha waaye xamal ne cosaan ba yonent bi kenn suulu ko woon ci jàkka ja loolu muy bind bu juróomeel bi suñu demee ci juróom benneelu bind bi tahrimu nabshil qabri wa naqli rufaatihi dañuy araamal di sulli bàmmeel wala di tuxal la nga xam ne mooy desetu yaramam wa yuxramu nabshul qubur wa naqlu rafaatihi rufaati ahliha des na araamal ñuy sulli bàmmeel di yóbbu la nga xam ne moom mooy desetu néew ya ca nekk aw ixraaji asxaabiha minha illa li daruratin akida loolu kenn waru koo def xanaa lu dul ci lor boo xam ne bu ñuy feddali la ka an yudfana bila xuslin masalan yu mel ne ñu daal di koy suul ci kenn sangu ko ci gàttal rek mbokk jullit bu ñu joxisee ba suul day aram ñu sulli ko lu dul nag ay lor yu tar gis ne masalan géej gaa ngi bëgg a jël armeel yi mi ngi noonu wala misaal bi mu ci joxe ña ko doon suul lañu ko suul rek sanguñu ko loolu it buñ koy wax mooy day fekk dañoo yëg ne yaram bi soppikuwul amma buñ dee ba yaram bi nekk di soppeeku loolu bëgguñu nekk di ko tuxal mu ne kama yukrahu naqlul mayit lazi lam yudfan baad min baladin ila balad noo nit la ñu sibee bépp néew boo xam ne kenn suulugu ko ñu koy toxal di ko jule ci dëkk bi di ko yóbbu ci beneen dëkk illa ida kaana almanqulu ilayhi ahadu alxaramayn alsharifayn lu dul ne fañ koy yóbbu kay day nekk ci ñaari dëkk yu tedd yi makka aw il madina aw il baytul muqaddas kazalik wala ñu yóbbu ko baytul muqaddas li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam idfinu lqatla fi masaari'ihim mu ne nit ki nga xam ne dañ koo suul ba pare kenn waru koo sulli lu dul ci lor ki ñu suula gurit sib nañu ñu koy yóbbu ci beneen dëkk lu dul ne makka la madina la wala al aqsa li waral loolu mooy yonent bi alayhi salaam dina woon laa tushaddu rihaala ila ila salaasati masajid kenn du jël ab tukki di dabu ji ngëneelu suuf lu dul ñetti jàkke yi makka madina ak aqsa loolu moom la layee ci loolu donte ne ni même bu doon tere ne mënees na koo suuli makka ñu suul ko fam dee moo ko gën dars bi passé wax naa leen Abdourahman doomi Aboubacar ñi ma àndaloon di tukki mu faatu ñu indi ko Madina Aïcha dani mënoon nañ ko suul fa mu faatoo kon di tuxal ab néew loole da ngay gis ne bokk na lu ñuy sib allahuma lu dul loo xamee ne nii bañ koy def defuñu ko ngir dabu ji suuf dañ koo def ngir dabu ji ay mbokkam yu fa nekk koo xam ne nii dafa jógee njàmbur wala Saalum wala feneen nekk fii ay mbokkam ña nga foofu mu ñëw faatu fii dara nekkul ñu yóbbul ko ay mbokkam lenn ci sunu mbokk njàmbur njàmbur yeeg Saalum Saalum yi tamit bari na lu ñuy laye mooy bu seen mbokk dee fii soo ko suulee fii waa dëkk bépp dañuy mbab babbee ko ñëw sa kaw pendant une semaine jaaxal la loolu tax ñoom dañuy tuxal néew bi di ko yóbbu waaye mbokk loolu ab biddaa la bu indi lor waaye la doon cosaan mooy nit ki fu mu dee ñu suul ko foofee amaa nag dafay bokk moom ci biddaa nga jàpp ne suuf sangam day moo gën suuf sii ci amoo ci dalil mi nga noonu nga jàpp suuf sangam nit ki bu dee nañ koy bu bàkkeel suufas bàkkeel moo gën suufas fii ci amoo ci dalil bu dee loolu moom loolee mbokk lislaam da koy tere lislaam da koy tere am na benn mbokk bu ñu àndal fii ci dars yi Cheikh Mouhamad Ndiaye am na yàlla doolu ñu ñëw dolli ko ko nee na dem na benn dëkk bu ñu doon suul benn mbokkam kilifa gi nekk ci dëkk bi daf na ne seen xel dal malaaka yi yàlla di yónni ci bàmmeel xamuñu dëkk bi fu mu nekk ci kaw suuf ndax yàlla mosu leen fee yónni fii kuñ fi suul direct àjjana nga jëm mbokk loolu ay mbir la yoo xam ne bu dee loolu moo tax nga toxal fa sam néew loolee moom ak biddaa la amaa nag bu dee toxal nga dañ ko yóbbu ci ay mbokkam wala yóbbu ko feneen dañ naan def nga lu ñu sib waaye dafa lu xaraam ndax ndax la gënoon mooy nga suul ko fa nga xam ne fa la faatoo moo tax yonent bi aleyhi salaam daan wax ne ñi faatu nañ leen suul fañ faatoo ñu ngi noonu su dee juróom ñaareelu bunt bi mooy istihbaabu ta'ziya sopp ga nga xam ne sopp nañu ko lii nga xamee ni mooy ak njaal tustahabu ta'ziyatu ahlil mayt rijalan kaanu aw nisaa qabla dafni wa ba'dahu sopp nañu ñu jaale ña nga xam ne dañoo deele da doon ay góor lañu wal ay jigéen jaal googu mën naa am avant ñuy suul jaal googu mën naa am après ñu suul ila salaasati ayyaam ba baa muy nekk juróom ñetti fan illa an yakuna al muazzi muazzina lu dul mu nekk ña nga xam ne dañuy jaale ghaiban aw ba'idan fala ba'sa in ta'akhkharat su dee ne nag ña nga xam ne dañuy jaale nekkuñu woon fi ba ñuy faatu wala dañoo sori dëkk ba lool dara nekkul ñu nekk di jaale gannaaw ñetti fan mbokk lii da ngay gis ne am njaal dana dana ko gën a leeral ba ñett ki faatu ñu ñëw bokk ak moom natt bi ngiree mu woyof mu ne loolu warees na ko def ba ñetti fan tey dañuy bëgg ne waa dëkk bi su dee yëg ngeen yëg ki faatu na ñu profitoo ci biir ñetti fan yi ñëw jaale ko gannaaw ba nag ñu xam ne jeex na ndax tànk nit ñaa ngi ñëw di ko jaale rek day beesal mbir bi ci moom loolu tax borom xam-xam yi sopp ne ngalawaay fexeel ci biir ñetti fan yi nga jaale ko doomu aadama nag ñoom wëlbati mbir mi ñoom jël ñetti fan yo ñoom def ko occasion daje pour noos saraxu ñetti fan saraxu juróom-ñetti fan nangam nangam loolu mbokk amul benn borom xam-xam bu ko wax borom xam-xam yi dañ doon wax loolu te it bokk na luñ cee gën a dëgërloo rasul sallallahu alayhi wasallam bi nga xamee ni nii jaafar faatu na doomam yaag soxna yi nekk ci tiis lool gannaaw ñetti fan dafa ñëw mu ne bis ni tey bu leen jooyee ci sama doomu sama frère bi ñu ngi noonu ala kulli xaal jàngoon nañ ci gannaaw it ne nit ki bu deelee te ñeen ko dul jëkkëram am na droit ñaawlu wala tristesse pendant ñetti fan waaye bu gannaaw ñetti fan yi nag sopp ñu ngay wane ay tristesse ak di jooy ci kum mën a doon amma bu dee soxna moom dañ koo sant mu wone ak tiis ak ñàkk bàyyi ñàkk daal di bàyyi toilette pendant ñeenti weer ak fukki fan loolee ndax yeneen i atte loolu kon mi ngi noonu ci gàttal islam xamul saraxu ñetti fan xamul juróom-ñetti fan ñeent fukki guddi at anniversaire u at yooyu yëpp nit ñi ñoo ko sos islam xamul loolu mu ne nag bu dee ne koo xam ne yow nekkoo woon ci dëkk bi même bu doon weer sax boo ñëwee mën nga dem jaale ci li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ma min muminin yuazzi axaahu bi musibatin amul benn jullit boo xam ne nii day dana jaale mbokkam ci musiba bu ko dal illa kasaahu llah lu dul yàlla subhanahu wa taala dana ko woddu azza wa jal min xulalil karamati yowmal qiyaama lu dul ne yàlla dana képp koo xam ne sa mbokk julit dafa doon ku ànd ak musiba nga ñëw waxtaan ak moom dalal xelam ba xelam dellu si mu ne ko mel noonu de yowmal qiyaama yàlla dana la woddu ca la nga xam ne mooy coli teraanga yay am yowmal qiyaama loolee kon mbokk jaale tuyaaba bu rëy boobu moo nekk ci moom boo delloo ci juróom ñetteelu bunt bi mi ngi lay détaillal nag maana taaziya lan mooy maana jaale dëgg-dëgg wa taaziya hiya tasbir jaale mooy yóbbu nit ki ci mu mën a muñ wa xamli ahlil mayte ala alazai wa sabr yóbbu ña deele te ñu doon ñoo xam ne ñuy dal lañu ñuy muñ lañu bi zikri ma yuhawwinu alayhim almasaab musaab jëree nga fàttali leen loo xam ne dana woyefal ci ñoom natt bi leen dal wa yuxafifu anhum shiddatu alxusn mu daal di woyefal ci ñoom taraayu tiis bi nga xam ne dal na leen te loolu mbokk julit da ngay gis ne nekk na mbir boo xam ne nii doomu aadama bu nekk ak xaalam la doomu aadama yi ak seen jamono ila axiri loola tax mu ne wa tuaddal taaziya bi ay lafzin kaan jaale moom nuñ ko mën a waxee rek ci waxin woo xam ne dana dalal ka dee rek loolu ak jaal lay tudd wa mimma yurwa anhu fi zalik bokk na loo xam ne solo nañ ko anhu sallallahu alayhi wa sallam fi zalik lu ñu jële ci yonente bi alayhi salaam ci am njaal qawluhu libnatihi mooy ba muy wax ñeel doomam bu jigéen ba nekkoon Zeynab wa qad arsalat ilayhi anna ibnan laha qad maat fekk dafa yónni woon ci moom di ko xamal ne doomam ja day faatu na fa arsala ilayha man yuqri'uha salaam wa yaqulu laha noonu la yonent bi yónnee ci moom ku koy jàngal ab nuyoo waaye di ko wax ne inna lillahi ma axada yàlla moo moom li mu jël wa lahu ma aata yàlla moom li muy joxe wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma bépp mbir nekk na ca moom ci dig boo xam ne bu ñu tudd la ba pare fal tasbir ngallaway muñal wal taxtasib ca yaakaar pay gu rëy ci yàlla mbokk lii mooy baasu njaal ci lislaam ku nekk war koo jàng koy jaale mi ngi noonu na doon dafa deele wala même natt bu rëy dal ko même bu dul dee ay ci ay cëram ci alalam mooy lan yàlla moo moom li nga xam ne moom la jël na am doom jeeg soxna seeg yëpp yàlla ko moom yàlla moo moom lim li lim la jox li fi des lépp yàlla ko moom su ko nekkoon jël lépp mu am lu mu jël bàyyee la te lépp da koo utaloon ab dig mooy sa doom ji dee sa soxna si dee sa baay bii dee buñ dajale woon tous les médecins du monde ak tous les milliards du monde mënuñoo fexe ba du dee ndax yàlla utaloon na ko dig ba pare li ci des mooy lan mooy muñal ca yaakaar pay ca yàlla suñu borom du natt mukk ab jullit lu dul da ko booleeg pay gu rëy goo xam ne bu ko jullit xamoon natt ba bànneex lay mujj doon ci moom mi ngi noonu loolu kon ñu jàpp ko bañ ko di ko dénkante suñu biir inna lillahi ma axada wa lahu ma aata wa kullu cheyin indahu bi ajrin musamma fal tasbir wal tahtasib yàlla moom la ma jël moom moom la ma joxe lépp da ko wutul jég muñal ca yaakaar fay ca yàlla loolu mooy jaal bi gën ci jaal yi donte ne mi ngi wax ne wa kataba ba'du salaf yu'azzi ahadan bi wafaati waladihi fa qaal na am na ci kenn ci borom xam-xam yu jëkk ya bindoon na benn lettre benn mbokkam bu doom ja faatu woon bokk na lam ko wax lii de min fulaan ila fulaan salaamu aleyk lii mi ngi jóge ci diw jëm ci diw maa ngi lay nuyu fa inni ahmadu ilayka allah allazi la ilaha illa huwa maa ngi lay seedeel sama cant gu may jëmale ci yàlla mi nga xam ne kenn yooyowul ñu koy jaamu ko dul moom amma baad fa azama allahu aj fa azama allahu laka al ajr ay waay yàlla na yàlla màggal sa pay wa alhamaka sabr yàlla na la xiirtal nga mën a muñ wa razaqana wa iyaaka shukr yàlla nañu yàlla wërsëgal te wërsëgal la nga sant ko ci na am bokk na luñ jàngoon ci gannaaw yàlla bu jëlee doomu ab jaamam dana wax malaaka yi jël ngeen sama doomu jaam bi ñu ne ko axa kay suñu borom jël ngeen meññetu xolam axa kay suñu borom lu mu wax xamidaka wastarjaa yàlla dalaa sant dellu ci yow mu ne tabaxal leen ko ca aljanna baytul hamd mooy kërug cant bu ñëwee ñu jox ko ko kon yàlla ñu yàlla wërsëgal sant fa inna anfusana wa amwa wa amwalana wa ahlana min mawaahibillahi alhania xamal ne suñu bakkan yi suñu alal ji suñu njaboot gi mayug yàlla la goo xam ne nii mayugu yaatu gu neex la wa awaarihi almustawdaa waaye nag ay ndénkaaña la yoo xam ni dañu koo dénk teg ko ci ñun ay ndénkaaña la de du moomeel bakkan bi alal ji njaboot gi du moomeel de ndénkaane yàlla la matta aka allahu bihi fi xibtin wa surur yàlla xéewal na la ci loo xam ne nii am nañu la ci ñeewoon yewit bégg nga ca wa qabadahu minka bi ajrin kabir yàlla bi mu koy jëlaat ci yow it man ka boole dencal la ca pay gu mag alsalaatu walrahma walhuda in in ihtasabahu in ihtasabatu in ihtasabtahu la la yàlla dencal mooy alsalaa mooy tagg gam lay tagg alrahma yërmaane gam lay yërëm alhuda jub gi mu lay dolli njub su dee ne yaakaar ngay pay ca yàlla muñ muñ gu rafet kon fasbir wala yuxbit jazauka ajaraka fa tandima ewaay muñal muñ gu rafet bu mu nekk di màbb ñékki ga ngay ñékki sag pay kon day ëllëg da nga réccu de bis boo gisee payu muñ ko diya waalam an al jazaa laa yuraddu mayta xamal ni daal di ñëkki lot du tax ci dee woon moom dekki mukk mi ngi noonu wala yadfa'u xusna du daqit la nga xam ne mooy tiis wa ma huwa nazil fa ka an qat lépp loo xam ne day day nar a ñëw loolu moom fokk mu ñëw rek mel na ne ñëw na kon ñëw na mënoo ci dara wasalaam maa ngi lay tëje di la nuyu ala muhim ci lettre bi lañ ci mën a déggee rek mooy nit ki bu ko nattu dalee mu war a muñ muñ gu rafet xam na yàlla moom lam jël ci moom xam na it ne suñu boroom bëggal ko yiw moo tax mu dencal ko loolee mu ko dencal te mooy ngërëmam yërmandeem ak njub ga nga xam ne dana ko ko jox su ko defee loolu misaal la ci wàllu njaal yum la jox waqad yakfi fi ta'ziya qawlu doonte ne doyoon na rek aussi cim njaal azama allahu ajrak yal na yàlla màggal sa fay wa ahsana azak yal na rafetal sa muñ wa gafara li maytik te jéggal ki nga deele mi ngi noonu mi ngi noonu wa yaqul muazzi amin ajaraka allah wala araka makruha su ko defee ka nga xam ni dañ koy jaale daa di ne ko amin yal na yàlla bindal la fay te bañ laa woon lenn loo xam ne nii lu naqari la almuhim mbokk yi yëpp ay misaal la waaye doomu aadama bi ku nekk yaa mën a xam nit ki nooy dalal la xelam pasan dajeeg benn soxna ci koo xam ne ni doom ji dafa gaañu mu naan ko muñal man day su ma amoon su ma xamoon rek ne am na fenn foo xam ne sama bàmmeelu doom ma nga fa sama xol doon na sedd waaye maa ngi nii sëy naa xaw ma ñaata at musuma am doom kon bu sa doom bu amee doom bu faatu santal yàlla loolee ak nu mën a doon ci wàllu na nga xamee ne nii noonu lay ngay jaale donte ne nii képp koy jaale it war ngaa xool mentalité am fa mu toll ak nooy wax ak moom ñu ngi nettee benn soxla su law bi benn doom dong la amoon doom bi ñëw rek faatu benn góor ak càmmin ñëw naan ko soxna si santal yàlla mu ne santuma ko dara santuma ko dara benn doom laa amoon jël ko dootuma jëli dootuma woor te lu nekk rek dafay am xaal bu nekk fooy wax ak moom am na koo xam ne nii xaalam yeggul ci nattu dal ñu leen ko santal waaw danga koy muñ loo jox ko ay misaal am foo ko jaarale waaye sa nattu dal sa kaw ngay sant yàlla loolu moom xaal bu kawe la fokk nit ki am niveau bu mu yegg bu ñu xoolee juróom-ñeenteel bi mooy bidaatul maatim bid ab dëj dëj wa mima yajibu tarkuhu wal ibtiaadu anhu mabtadaahu nnaas li galabati al jahl bokk na loo xam ne wareef lañu ba ko sori ko li nga xam ne nit ñee ko sos ngir réer ni mu note min al ijtimaai fi l buyut li taaziya wa iqamati al maadi mi ngi noonu la nga xam ne nit ñi sos nañ ko daje ca kër ya ne dañ koy tuddem njaal ak daje fa di daje ci togg yoo xam ne nii dañ koy def seen biir wa sarfi al amwal min ajli al mubahat wal faqr dépense ay alal dara taxul lu dul puukarante ci seen biir ak wone wonte isi salafu saalih lam yakunu yajtamiuuna fi lbuyut ña nga xam ne ñooy ña jiitu woon ñu baax ña day daaw ñu dajaloo mukk ci këru ka day bal kaanu yuazi baaduhum baadan fi lmaqbara lañ daan def mooy dañ daan jaalante lenn ca ñoom ca biir armeel ya wa inda mulaqaat fi ay makaan ak fu ñu masaan daje ci place bu mu mën a doon loolee lañ daan def mu ne nag wala ba'sa an yaqsaduhu fi ila mahallihi in lam yatamakkan min muqabalatihi fi lmaqbara aw ash-shari' mu ne dara nekkul it soo amee mbokk boo faatule mun loo ko gis ci armeel ya amoo foo mën a dajeeg moom xam nga ne mi ngi këram dara nekkul ngeen dem ci kër ga jaale ko foofee isil muhdas hul ijtimaa'ul xaas mi ngi noonu al muaddad i'daadan mutaammida lañ ca bañ daal mooy woote goo xam ne dañ koy woote comme niñ koy waxee da du ñetti fan da du juróom-ñetteelu fan mi ngi noonu ñëpp am toog lu ñuy xaar waaye bu dee ne ñee dañoo ñëw jaale dem ñee ñëw jaale dem même bu ñu fa dajee jaale yëpp loolu ku jaale dem si yoon loolee islam bañu ko bu dee ne fukkeelu bunt bi ci li nga xam ne day war ñu koy xalaat ci néew mooy istinaul maaruf li ahlil mayt def njëkk jëme ko ca ña faatule yustaabu san u taam lil ahlil mayt sopp nañ ñu defar ay lekk ñeel ña faatule wa yaqum bi zalika al aqarib aw al jiraan yowma loo fa dara taxawe ci loolu jege ñaale ya ak dëkkandoo ya bis ba nga xamee ne nii dañoo am ko ñu faatule li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam isna'u li ali jaafar ta'aman fa innahu qad ataahum amrun mi ngi noonu yashghaluhum yonent bi alayhi salaam ba jaafar faatoo dafa ñëw na soxnaam yi togga toggaale leen toggal leen waa kër jaafar ñam bu ñu mën a lekk ndax kat diggal na leen mbir boo xam ne itteel na leen loolu mbokk da ngay gis ni moom mooy la lislaam santaane woon mi ngi noonu mu safaanoo ak ñun li xew suñ jamonoy tey suñ jamonoy tey yow mi dee na yaay dajale lekk boo jox nit ñi pour ñu lekk waa Ndakaaru sax alhamdulilah mais dëkk yu bari ci kaw gi bu sa bàyyi dee sa tiis du sama bàyyi dee na fan lay jëlewu nag mooy sa problème ay gis ñoo xam ne ay bor yu bari da leen cee kaw yaa ngi dégg loolee mbokk islam moom waajul woon loolu moo tax mu ne amma an yasna ahlul mayt anfusahum at taam li gayrihim fa hada makruh la yanbaghi lama fihi min mudaafati al musibati alayhim léegi nag contraire ba mooy ñi dee la ñoom ñooy ut lekk yoo xam ne dañ koy jox nit ñi ñu ñëw mu ne loolu yeeyul ndax loolu mooy ful natt yi ci seen kaw ñu ngi noonu dee la nañ ba pare gàddu ay bor encore ci jox nit ñi ñu lekk loolu mi ngi noonu nga ciy gis ay histoire yu bari yoo xam ne ñi nga xam coono bi ñuy daj bu seen mbokk deeyee pendant une semaine nga war di joxe añ reer añ reer añ reer rawatina nañ yàlla nattoo seen doom dee Europe tant que koor bi ñëwul même bu doon un mois xamal ne mbooloo maa ngi toog añ reer añ reer te du ñu añee sombi du ñu reere ceebu keccax ah suñ caaf ceeb yu xonq yu yu niin la ñuy bëgg di lekk di naan lu sedd mi nga noonu su ko defee kon loolu mbokk da ngay gis ne jaaduwul moo tax mu ne wa in hadara mi ngi noonu wa in hadara man tajibu diyaafatuhu ka xaribin masalan استحب أن يقوم الجيران والأقارب بديافته بدلا عن أهل الميت mu ne su dee ne dafa am ñu jógee feneen fu sori loolu sax la gënoon mooy dëkkandoo yi ak mbokk ya dalal ñooñu ba may leen lu ñu lekk mais ñi nga xam ne ñoom seen mbokk dafa dafa dafa faatu wax tiis boobu waruñu cee dolli beneen tiis bu dee fukkeelu bundi bi ak benn mooy asadaqatu alal mayit génneel sarax nag ko faatu xam ngeen boo déggee ñetti fan juróom-ñetti fan lépp mooy sarax sa sarax sa kani la sarax lan mooy sarax yustahabu sadaqatu alal mayit sopp nañu ñu def sarax ñeel ki faatu lama rawa muslim an abi hurayrata an rajulun qaal muslim nee na abi hurayrata nettali na benn góor daa ñëw ne yaa rasulallah inna abi maat sama bàyyi de daa faatu wa taraka maalan bàyyi na alal walam yuusi waaye dénkaaniwul dara fahal yukaffaru anhu ana atasaddaqa anhu ndax dana ko mën a faral ay bakkaar ci man ma sarxel ko qaala naam mu ne ko aha kay wa lamma maata ummu saad ibnu obada ba mu faatu yaayu saad ibnu obada radiyallahu anhuma qaal ya rasulallah mu ñëw ne daal di ne ayum yàlla yónni inna ummi maatat sama yaay dafa dee afa atasaddaqu anha ndax mën naa ko génneel sarax qaala naam qaala fa ayu sadaqa afdal mu ne ko ayum yàlla yónni ban sarax moo gën qaala saqyul ma mu ne ko nga naan dal ndox bu ñu naan mbokk ñaari xadis yi kii dafa laaj ci baayam kii laaj ci yaayam mooy génneel seen waajuru sarax ndax mooy saraxu Sénégal dañ koy sarxeel juróom-ñetteelu fan ñu ñëw ñu rey nag soo demoon ci àll bi nag bi ñu rey bopp nag bi ci buntu kër gi lañ koy teg ñi fekkewul woon buñ koy rey ñëpp buñ gisee seen bu ñëwee gis ko mooy reyal nañ ko nag bu ko defee ñu togg ay mbana ñëpp ñëw ñu togg seen ceeb yi neex naan yu sedd ndax loolu mooy sarax la mbokk loolu sarax loolu noos la sarax miskin yi ñoo ko moom mooy sa waajur faatu nga jël lu am solo lekk la naan la ah wala xaalis la daal di koy génneel sarax sarax boobee kii bi muy laajtee yonent bi alei salaam ne ko lan lay saraxe mu ne ko saraxel ndox la chaque ne jamono jooju Madina ndox dafa tumuranke lool looloo tax ba root ndox gan yi ñëw nga may leen ñuy naan tuwaa bu ñu réy la woon muy wone ne sarax la ca gën mooy la nga xamee ne nii dafay jëriñ ña nga ko jëmale donte ne ni sarax yi mu tudd fii am na yeneen lu mel ni ajal ko lu mën a nekk umraal ko lu mën a nekk gasal koy teen lu mën a nekk tabaxal koy kër gu ay nit di dëkke lu mën a nekk lépp loo xamee ne nii dafay doon sarax buy sax moo gën sarax boo xam ne nii day day jeex loolu lépp mën nga koo defal la nga xamee ne nii say waajur lañu donte ne arab yi raw nañ ñu ci côté boobu lu bëree bëree bëri dëkk yu bëri dafay am lu ñuy tuddal awqaaf ñoo xam ne dañu am sax ministère yoo koy garder mooy jël ay alal yu bëri di ko jagleel seeni néew nga xam ni alal ji moom dafay sax la cay cosaanoo dellu ci néew bi wala ñañ koy jox ñu koy dëkkee di ay fuqaraaw ak i masakin duñ ca nekk di fay yii yépp mbokk mënees na koo defal suñuy waajur amma jël cinq cent mille un million togg ay togg ña ëpp ña koy lekk du ñu ay miskin miskin yi sax duñu fa jege loolu mbokk ñoo ko tudde sarax waaye du ab sarax ci lislaam mi ngi noonu amma bu dee fukkeelu bunti bi ak ñaar mooy li ñuy tuddee qiraatul quran jàng alquran alal mayit la ba'sa an yajlisa al muslim fi l masjid dara nekkul julit toog ca jàkka ja aw fi baytihi fa yaqra alquran wala ca këram mu daal di jàng alquran fa ida faraga min tilawatihi saala allaha taala lilmayiti almaghfira warrahma julit mën ngaa toog jàng sa alquran bi nga pari nga ñaan yàlla yàlla jéggal yërëm sa aji deele jàng ma day nekk wasila loola jokkaleeg yàlla mi ngi mel ne boo wooroon ba ngoon wala nga julli woon ba pare wala nga ajoon ba pare wala lu mën a doon loolee da ngay gis ne moom islaam nangu na ko moo tax mu ne mutawassilan ila allah bi tilka tilaawa alati talaaha min kitaabillah nga jokkoog ci yàlla ci njàng moom nga jàng ci téere bi yàlla bi mu ne amma ijtimaul quraa'i fi baytil haari mu ne la nga xam ne nag gis nañ ko léegi mooy woo ay jàngkat ñu daje ca këru kafaatu ala qiraa ñoom ñëpp ñu daje di jàng téere ba wa ihdaa'uhum sawaabu qiraa'atuhum lil mayt suñu paree ñu ne yoolu liñ jàng jox nañ ko kii day wa i'taa'uhum ajran ala zalik bu ko defee ñu leen di jox pay ca loolee min qibali ahlil mayit muy jóge ca ña deele fa haza bidatun munkira yajibu tarkuha lii moom biddaa la bu ñaaw boo xam ne wareef la nit ñi bay ko lu waral loolu wa daawatu l ixwati l muslimin ila jinabiha wareef la ñu woo mboolem mbokk jullit yi ñu sori loolu wal ibtiaadu anha ñu daal di koy bàyyi sori ko islam yarifuha salafu hadihi l ummatu salih ndax bu ñu delloo ca ña jiitu woon ci sunu ci diine ji musuñoo xam woote ca këru ku dee daayira kaamil ñu ñëw naan dañuy jàngal quran walam yaqul biha ahlul qurun al mufaddala ña nga xam ne ñooy siècle yu jiitu woon kenn musu cee wax lool doo ko gis ca téere malik shafii ibnu hambal abu hanifa téere yi nga xam ne ñooy cosaanu ca siècle yu jiitu ya doo fa gis benn téere buy jàngale ne dajaloo ci këru ku dee di jàng alquran wa ma lam yakun li awali hadihi l umma diinan lam yakun li axiriha diinan bi xaalin min al ahwaal ca njëlbeenu xeet bi lañ jàppul woon boole ko seen diine du mën a nekk diine ci ñu ñëw gannaaw ak lu mën a doon loolee kon mbokk tey soo demoon ci dëkk yu bari bu sa bàyyi dee ci jàng wàcce loo ko kaamil dañuy jàpp ne yow day danga koo doyo daal joxoo ko la nga xam ni mooy dëgg-dëgg lii nga xam ne mooy àqam li ñuy defal nit ki gannaaw faatu ba tey fukkil ba ak ñett bokk na ca xukmu ziyaaratil qubur lan mooy atti ziyaara bàmmeel ziyaaratul qubur mustahabba dem ziyaara bàmmeel dañ ko sopp لأنها تذكر بالآخرة وتنفع الميت بالدعاء والاستغفار له ndax benn yow mi ziyaare ci dana la fàttali àllaaxira te day jëriñ ka ngay ziyaare ji ci ñaan nga koy ñaanal ak jéggalu gi nga koy jéggalul di qawlihi sallallahu alayhi wa sallam kuntu nahitukum an ziyarati alqubur fa zuruha fa innaha tuzakkirukum alaaxira yonent bi alayhi salaam te njëlbéenu lislaam bi diine ji saxagul ci xol yi nit ñi daan jaamu ay xërëm ak i xeer ak i garab dafa tere woon bu kenn di dem di ziyaare ay bàmmeel ba mu demee ba yëg ne nag diine ji sax na mu ne nag maa leen tere woon ziyaare bàmmeel léegi dem leen ngeen ziyaare bàmmeel ndax loolu dana leen fàttali àllaaxira dana leen fàttali àllaaxira te it mbokk bu dee da nga ànd ak sa xel nga demoon tey masalan dugal armée lu yoof tey da ngay xool ñi jiite woon ndakaaru ci cinquante ans yi ci gannaaw ñoom ñëpp ñu ngi tëdd foofu ñi yoroon alali ndakaaru ci wacca suñu mbokki naar yi nañ fi daan tuddee ay grand sëriñ nañ fi daan tuddee ay ministre ay ñaari président ñu ngi yoof la fa nekk ci ay procureur la fa nekk ci ay ministre la fa nekk ci ay homme d'affaires kenn xamul nañu toll ñoom ñëpp ñu ngi tëdd foofu mu ne leer nañu bu ñu fi jógee àllaaxira moo taxaw lépp looy dang dangi di ko dàq rek ku loo ko ëppale foofu mi ngi tëdd fi loolee kon dana la fàttali nga waajal foofu ne noonu nga waajal foofu lañ amoon ci àdduna ñeneen jël nañ ko Ali ibn Abi Talib ànd na ak lenn ci ay àndandoom biñ ñëwee ci armeel yi mu ne ay yéen waa armeel yi na ngeen def seen alal yi ngeen bàyyi woon day gaa yi seen doon nañ ko de seen soxna yee ñeneen takk nañu leen seen kër yee ñeneen dëkkee nañu leen ah lan lii lan mooy seen mbir àll na seen ndaw Ali ne ne ñi mu àndal wallahi bu ñu mënoon a wax daañ tontu ne fa inna xayra zaadi taqwa li gën lu nit ki di ittiwoo ci àdduna mooy fexe ba am ragal yàlla leneen lu ñu loolu da nga ko fi bàyyi dem illa an takuna al maqbara aw al mayt ala masafatin baidatin yuttaru zair maaha ila shaddi rahli wa safarin qaas mu ne lu dul ne armeel ya sori wala ka ñu suul sori foo xam ne yow pour nga dem fa fokk day doon ab tukki mu ne fa innaha xiina idin la tushra su dee nag da ngay tukki ngir jublu dem ci bàmmeel ndey ak bàyyi ku mën a doon loolee kenn yooyoona la ko li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam laa tushaddu rihaal ila ila salaasati masaajid kenn du takk ab tukki jëm lu dul ci ñetti jàkka al masjidul haram wa masjidul haza ay wa masjidi haza wa masjidul aqsa ñetti jàkka rek la nit ki mën a tukki jëm ca mooy tukki jëm masjidul haram wala tukki jëm masjidul aqsa wala jumaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amma beneen place bu doomu aadama jàpp ne màgg na ba tax muy tukki di fa dem na doon dafay ziyaara ji ab yonentam dafay ziyaara ji kum mën a doon loolee kenn yoonalu ko su dee fukkeel bi ak ñeent yaqulu zair lil qubur qubur al muslimin ma kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ida zaara baqia julit booy ziyaare bàmmeel nga la way waxal la yeneen ci boo waxoon bu daan ziyaare baqiya ca mooy assalaamu aleykum ahla diyaar min al muminin wal muslimin maa ngi leen di ñaanal jàmm ak mucc yéen waa dëkkuwaay yi ci ñi gëm yàlla ci jébbalul yàlla wa inna insha allahu bikum lahiqun te ñun day bu soobee yàlla ci yéen la ñuy dab si léegi antum faratuna wa nahnu lakum tabaa yéen a ñu jiitu rek waaye ñun ñu ngi topp si ci yéen nasalullah lana wa lakum al afiya ñi ngi ñaanal suñu bopp di leen ñaanal afiya allahuma igfir lahum allahuma irhamhum yàlla yàlla na nga leen jéggal yàlla yàlla na nga leen yërëm loolu kon mooy ñaan gi doonte ne ne la ko tënk mooy lu mujj la heure boo duggee ci bàmmeel nga ne allahuma igfir lahum allahuma irhamhum yoonal nañ nag nga nuyu leen te nuyoo boobu sunnaa ko saxal yàlla xam nu mu leen koy jottalee assalaamu aleykum wa rahmatullah allahuma igfir lahum allahuma arhamhum loolu mi ngi noonu bu dee ñaan nga dee diis ci yow bu dee bind bi ci mujj nag mooy xukmu ziyaaratul qubur li nisaa ban mooy atte luy atte ci jigéen dem di ziyaara bàmmeel lam yaxtalif ahlul ilm min xurmati kasrati taraddudi al mara ala al maqabir li ziyaaratiha borom xam-xam yi juuyoowuñ ci ne jigéen joo xam ne daa sol dàllam rek bu su dama nga ci armeel ya bu su dama nga ci armeel ya loolu ñépp dëppoo nañ ne loolu baaxul wa zalika li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam laana allahu zawaratul qubur yal na yàlla rëbb jigéen ñi sax di dem ca bàmmeel ya te loolu it xëy na léeg-léeg duñ ko miin ci suñu dëkk yi waaye dañu gis jigéen ñi bari bu seen jëkkër faatoo bés bu ñu xëyee dem ca bàmmeel la am na benn góor goo xam ne góor gu ma xam la ndeysaan moog jabar ji dañoo jege woon lënkoo woon bi jabar ji faatoo bés bu ne ci biir Dakar ndam jóge paas armeelam la yendu yoof def na ko xam naa daal lu ëpp weer yoo xam ne ni chaque jour ci armeel ba lay yendu loolu nag mbokk da ngay gis moom borom xam-xam yépp dëppoon nañ ne baaxul léegi nag mu des ci ki nga xamee ne nii moom bari lu ko wa amma maa adami kasrati wa takrar fa baadu kariha laha ziyarat ziyaratan mutlaqan li hadisi saabiq même bu dee ne moom bari lewu ko leen na ci borom xam-xam yi dañ koo bañ ci jigéen jigéen moom du dugg bàmmeel ndax li yonent bi ne yàlla rëbb na jigéen ñi sax di ziyaara bàmmeel ñoom ñu jàpp ne ziyaar rek la yonent bi wax wa baadu ajaza laha mi ngi noonu ajaza lama sabata an aisha radiallahu anha zaarat qabra aqiha abdurrahman am na yeneen borom xam-xam nag ñu ne déet jigéen kay mën naa ziyaara ji bàmmeel ndax Aïcha dem na ca armeel yi ziyaara ji bàmmeelu frère am Abdourahman fa su'ilat an zalika fa qaala biñ ko laajee waa lu tax ngay dem di ziyaara bàmmeel mu ne naam kaana qad naha an ziyarati alqubur suma amara bi ziyaratiha mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tere woon ñu ziyaara bàmmeel gannaaw bu mu digal ñu ñu ziyaare ko su ko defee borom xam-xam yi am juyoo foofu am nañu ne su dee ne soxna si nekkul di baril ziyaare bàmmeel waaye daal léeg-léeg rek lay doon mu dem ziyaare leen loolee kenn terewu ko lañ tere mooy baril ga mu ne waaye wa man ajaaza ziyaarata nisaa alqalila ishtarata adamu fi'liha ay munkar kaan mu ne même ñi ne nag jigéen mën na ko ziyaara lu néew ñu mel noonu day dañoo chartol ne bum ca def lenn loo xam ne lu ñuy sibla ka antanuuha indal qabr mi ngi mel ne mu dem ca qabru ba di fa jàmbat jàmbat ku dee muy niyaaha aw tasruxa wala mu nekk fa di yuuxu aw taxruja mutabarrija wala ba muy dem nekkul di aji muur ay cëram aw tunaadil mayt wa tasaluhu xaajataha wala li xew Sénégal ak fu bëri dem ca xabru ba di ñaan borom xabru ba ila gayri zalik mimma shuhida fi'luhu min an-nisa nisa al-jahilat ak lu mel nii la nga xam ne seede nañ jigéen ñi nga xam ne dañoo réer dañ koy def bi umuri diin fi gayri zamanin wa makan li ñu gis jigéen ñu réer di ko def ñooñu réere seen diini ci place yu bëri ak waxtu yu bëri mbokk kon almuhim loolu moo doon tëj téere boobee di ahkaamul janaiz ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala yal nañu yàlla yërëm yërëmal ñu suñu way dawlu yépp wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain mooy ziyaare bàmmeel yi mboole seen loolu moom fa nga duggee ca armeel yi rek ngay wax assalaamu aleykum ya ahla diyaar baba ñaan nga jeex ñoom ñëpp nga boole leen ziar ñoom ñëpp boole leen ñaanal gannaaw loolu nag ka nga xam ne xam nga ko fa man nga dem ba ci bàmmeelam nga ne ko assalaamu alayka ya Muusa ya Fatima ya ummi ya abi man nga ko wax làkk bu la neexit gannaaw ba nga ñaanal ko gannaaw ba nga ko nuyoo ñaanal ko dem ci ñi nga xam ñëpp ku ne nga taxaw ci bàmmeelam nuyu ko ñaanal ko loolu lu ñu yoonal la ñu mel ne rek tey boo demoon Madina da nga ñëw ci xabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum ya rasulullah ñaanal ko def un pas asalaamaaleykum ya Aboubacar def un pas asalaamaaleykum ya Omar kon loolee lu ñu yoonal la mooy koo xam ci armeel yi nga dem ba ci bàmmeelam daal di koy nuyu ñaanal ko yàlla subhanahu wa taala moo xam ci mbaaxam ak yërmandeem nan la koy yégale loolu te ñaan goog nga ko ñaanal it day doon loo xam ne lu koy jëriñ la donte ne foo tollu ñaanal néew moom néew ba dana ca jot waaye nag dem nga ngay dem ci moom dafay dolli ngëneel ñu mel ne rek aji feebar ji foo tollu ñaanal ko baax na waaye dem ba ci moom na nga ñaanal ko day doon ngëneel mi ngi noonu amma bu dee xamoo fuñ ko suul ñëw nga ci armée li boo ñaanelee boo ko ñaanalee incha allah ñaan nga dana ci jot wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam naam ah waaw du tax waaw waaw waaw ndax bu ñu tabaxee jàkk ba pare bala ñu ko tijji wàcce kaamil déedéet loolu islam xamut loolu islam xamut loolu bal boo demoon ci jàkk yu bari sax àjjuma ju ne dañ fay wàcce kaamil waaye loolu lépp mbokk dañoo dab nañu xam ne daal dajaloo mbooloo jël kaamil ba tasaare ko wàcce ko ci benn place loolee mbokk islam xamut loolu dañoo dab loolu dañoo dab mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal loolu moom borom xam-xam yi dañ ci am ixtilaaf ndax nit ki nga xam ni doom la du jàng alquran jagleel ko way juram am na ñoo xam ni ñoom dañ ne loolu dana ca jot qiyaas ko ci at gi ak umra gi allahuma am na ñoo xam ne ñoom dañu ne néew bi la koy jëriñ yonent bi sam da koo lim te boole wute woon di ko jullil wala di ko wàcceel kaamil wala di ko jagleel bi su koor lu dul koor ga nga koy fayal ak yu deme noonu su ko defee li gën a mucc ayib mooy yow jàngal alxuraan ji wasiila la gannaaw ba nga ñaanal ko lu ci mën a am la ñuy wax ca wàllu googee mooy dañ naan loolu moom borom xam-xam ne ci am ixtilaaf la nga xam ne daal amuñu ci ixtilaaf mooy woote mbooloo mi ñëw ñu tas kaamil bi seen biir loolee moom amuñu ci ixtilaaf la ñu am ixtilaaf nag mooy ñoo xam ne nii nit nee na doom mën na jàng alquran jaglal ko way juram am ñu jàppale neen wallahu subhanahu wa taala alam naam am ala kulli xaal waaw kon ñu mujjee ci mbokk bi rek bismillah waaw naam bismillah bu ne ah bu ne ndax mbokk ndax sa mbokk mën nga ko jox sarax ah kay ah kay sarax kay mën nga koo jox sa mbokk sax moo gën a yey ci nga jox ko sa mbokk moo gën a yey ci nga jox ko la nga xam ne daal moom lañ dul joxe mooy say doom ak say waajur ñooñu lañ ñi doo leen jox sarax donc ah waa ak sa soxna sa doom sa waajur ak sa soxna soxna moom mën naa sarax borom këram bu borom këram ñàkkee mën na ko sarax mais sa doom say waajur ak sa soxna ñooñu la nga leen di jox ci dépense. dañ xam ne moo gën a màgg sarax waaw la nga leen jox ci dépense moo gën a màgg sarax am maa nag bu dee jëmmi loo génne moom pour sarax loolee moom ñi ci gën a yey frère yaag bajjan yaag nijaay yaag ñoo xam ne say jegeñaale la ñoom ñoo gën a yey ci ci ci ci ci sarax mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam subhanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk